asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñëw jotaay biñ baaxoo ànd ak yéen ci waxtu yi ci jamono june insha allahu taala di leen nuyu nuyoo ba gën a sell gën a tedd gën a jot diggante jullit ak mbokkum jullitam muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi di leen ñaanal sun borom defal leen jàmm ci waxtu wu ne ak jamono ju ne tey ñaan itam sun borom defal ñu jàmm yitam ci jamono ju ne ak waxtu wu ne tey nag ñu ñëwoon ci ay jagleel yoo xam ni nit ki nga xam ni day soog gane àdduna ak nit ki nga xam ni bis bim mu àdduna ci juróom-ñaari fan yi bis bu mu ci tombeel la gën a mën a doon njariñam te mu umpule ko te nga xam ni mën na koo jariñ njariñ lu ama am solo ndax euh, boo xoolee li ko commencé yowmul sabti yowmul ahad yowmul isnayni yowmul sulasa yi yowmul arbaa yi yowmul xamis yowmul jumaa bis bu ne boo ci gënee àdduna rek am na lu gën ci yow te la gën ci yow noonu boo tawatee itam boo ko defee danga xam ni suñ borom musal na la danga xam ni suñ borom bëgg na la danga xam ni suñ borom bàyyi na la xel te la ko sababoon mooy lii nga defoon ndax wa aataynaahu min kulli shay'in sababan yàgg naa ko wax koo xam ni dafa judd bisub dimanche muy bisub dibéer danga koy bindal wattiini wa zaytuuni ki judd bisub danga koy bindal wattiini wa zaytuuni bu woppee itam danga koy bindal saaru alxeekumut takaasuru xatta zurtumul maqaabira ba saar wa jeex bu fekkee dafa juddu danga koy bindal wattiini wa zaytuuni mu takk ko bu juddoo bisub dimanche waaye itam ka juddu bisub dimanche bu tawatee da nga koy bindal saaru alxeekumu takaasuru xataa zurtumul maqaabir bu ko defee suñ borom dana ko musal ginnaaw ba ko bindalee saaru alxeekumu takaasuru nag danga koy booleek reenub ngeer mu takk ko bu ko takkee subhanahu wa dana dogal dootu am tawat ba dana ko yeex a dalaat te jamono jum ko takkee rek jamono jooja dana daal di wér ci coobare yàlla koo xam ni itam sun boroom da ko dogal mu judd bisub altine kooku alam nasrah laka sadraka lay bind bu ko bindee takk ko bu ko takkee itam bu woppee day bind saaru isa zulzilati ardu zilzaalaha wa axrajatil ardu asqaalaha bu woppee loolu lay daal di bind lu koy booleel ginnaaw bi mu bindee suratu zilzaali reenub kànja la koy booleel bu ko booleek reenub kànja mu takk ko loolu ki juddu bisub altine moo ko moom ku suñ borom nattoo mu juddu bisub talaata dañ koy bindal isaa jaa nasrullahi wal fathu wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbih bi hamdi rabbika wastaxfirhu innahu kaana tawwaaba ki juddu bisub talaata loolu nga koy bindal mu takk ko bu woppee itam da koy bindal saaru isa samsu kuwirat wa isan nujumun kalarat da koy booleek reenu xool mu takk ko bu ko defee sun borom dana ko saafaral tawat jooju itam ku sun borom dogal itam mu juddu bisub àllarba dang koy bindal qul yaa ayyuhal kaafiruuna da koy bindal qul yaa ayyuhal kaafiruuna boo ko bindalee xul yaa ayuhal kaafirona mu takk ko bu woppee da koy bindal inna anzalnaahu fi laylatil qadri ak reenub daqaar mu takk ko koo xam ni itam sun borom daa dogal mu judd bisub àllarba dañ koy bindal saaru xul yaa ayuhal kaafirona buñ ko bindalee saaru xul yaa bu woppee dañ koy bindal saaru inna anzalnaahu fi laylatil qadri lañ koy bindal biñ naaw biñ bindee saaru inna anzalnaahu fi laylatil qadri dañ koy booleeg reenub daqaar reenub daqaar lañ koy booleel mu takk ko koo xam ni dafa judd bisub àllarba dañ koy bindal qul yaa ayyuhal kaafiruuna mu takk ko waaye bu woppee itam dañ koy bindal inna anzalnaahu mu takk ko boole kooku reenub daqaar ku judd bisub alxames des koy bindal wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadha lañ koy bindal mu takk ko bu woppee ñu bindal ko isaa jaakal munaafiquuna ak reenub sawat koo xam ne dafa judd bisub alxemes nañ ko bindal wala aadiyaati bu yàlla dogalee mu wopp itam nañ ko bindal isaa jaakal munaafiquuna boole kook reenub sawat mu takk ko ku juddu ajjuma da koy bindal nuun wal xalami saaru nuun wal xalami wa maa yasturuuna boo ko ko bindalee mu takk ko bu woppee itam nga bindal ko suuratul jumaa bu woppee da koy bindal suuratul jumaa muy yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi malikil quddus loolu nga koy bindal bu sun borom dogalee ki judd bisub aljumma wopp ku judd bisub gaawu muy samdi da koy bindal inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayaamin summa stawee ala alxarsi ba ca ila alalamina bu woppee nga bindal ko wannazihaati xorqan wannaasitaati nastan moom nga koy bindal boo ko ko bindalee ak reenub seer la koy booleel ginnaaw ba nga bindee saaru wan naaziaati mu takk ko boole ko reenub seer mbooleem ku yàlla nattoo bis yi nii mu bàyyi xel bis bi nga xamee ni ci la ganee àdduna bis bu mu mën a doon la gaaw ci njariñ loo xam ni mën na koo musal ci mbooleem loru àdduna ak alaaxira mooy na xool bis bu mu ganee àdduna saa yu tawatee mu bàyyi xel wan saar la war a bindulu takk ko ak lan la ko war a booleel ku ko def itam suñ borom dana la musal suñ borom dana la sàmm suñ borom dana la teral àdduna ak alaaxira nag njariñ moom mbooleem koo xam ne nii xam na ko da cee war di jariñe rawatina ab xam-xam sax moo ci raw nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni ku ci nay ku ne rek imma an yanzaahu mën nga koo fàtte wala yaxfasu wala doo ko mokkalati loolu itam mat nay bàyyi xel bu baax a baax wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bi alihi wa sahbihi wa xadimihi amin